ba di leen jubbanti ñuy nab nabi ndànk ndax ñu ñuy tamit ci njàng mi lañ lañ lañ toll loolu moo sababoon liggéey bi te lenn du lan lu may jéem a sàmm war may Touba ndax xam nañ ne jamono jamonoy ji wàllum taskati xibaar dafa tasaaroo te lu jóg ñu ne taskati xibaar am na ñoo xam ne ñu ngi ciy def ay matadi te du seenu tayeef seenu ñàkk xam la ñu ne woon nag danañ ko tàmbali te dootuñu ko dootuñu ko bàyyi di ci ñaan seen ndimbal ak seenu ñaan ndax gis nañ taxawaay bi lépp mat na Euh, kuréel gi ñëpp la dajale ñi ci ñëwut am na ñu leen tegal ñu leen teewal ñenn ñi dañoo am ngànt xëy na yàlla dogal na fekku waaye raison njaareem bi yëpp la mu mu daal muy loo xam ne daal waxtaan la woo xam ne ñoom ñii amuñu ci ak fuñ seen cant amul fu muy yem yéen ñi tamit li ñu sàkk mooy ñaan rek ngeen yàgg fi ndax sagub yoon wi ngeen amuñu amuñu maanaam amuñu kàddu yu weesu loolu sant leen ñaan leen ngeen yàgg fi te xam ne amuñu beneen yitte lu may liggéeyal Sëriñ Tuubaa ci dëkk bi ndax laa dañuy nekk ay journaliste kat ay taalibe lañu nekk loolu duñ ko fàtte bu mukk te duñ ko duñ ko mos a bàyyi ginnaaw kon Mbàkke ñu ngi leen di ñaan ngeen ñaanal mbooloo mi ndax ñoom tamit yéene jooju may wax ni ñoom ñëpp moo nekk seen xol yi léeg-léeg nag liggéey bi dana am matadi gu leen dal wala leneen waaye loolu taalibee ko lal ci suuf ak bëgg moo ko lal ci suuf kon ñu ngi leen di ngeen jàgg fi loolu te ànd ak yéen Mbàkke waaw mbooloo mi tamit seen seen seen seen ndigal rek lañu lañu la ñuy déglu amuñu lu bëgg amuñu lu ñuy lu sax ay taalibe lañ yéenañu moom waaw foo ñu koo ñu booleel muy suñu jëwriñ ca loola ànd nañ ca loolu rek la ñuy déglu loo nga bëgg loola la ñuy def su yéen wuñ cee def lenn loo xam daal bu yeggsee ci yéen ngeen am nu muy def ci yéen ko yàlla jërëjëf Mbàkke jërëjëf Mbàkke li sadinatan bi kullil janna min daari minan yaatal minna li sadinatan bi kullil janna min daari